benn baal leen ñu àq baal leen ñu àq baal leen ñu àq baal leen ñu àq baal leen ñu àq ba muy juróom-ñaari yoon ndax nag artiste moom euh, dafa am sew-sew gu ci ne léeg-léeg nga wax ñi ngay li ngay wax gars yi duñ ko gisee noonu wala duñ ko déggee noonu mais yow miy wax bégal leen moo la moo la taxoon a jóg wala am lu message boo bëggoon a lancer boo xam ne du yow artiste bi yaa say wax mais waxi keneen nga bëggoon a lancer ba tax na nag yal yàlla def Sénégal ci waxi ci ci ci ci jàmm def Sénégal jàmm def Sénégal mu doon dëkk bi gën a prospère ci àdduna nit ñi soxla yi di faju aajo yi di faju wér gi yaram euh, gi dootul sooxe fu waay tawatee faju ñi ci kaso yi yàlla génn leen kon teg ren gii ñu yàgg koo teewe ay at yu baree baree baree baree baree bëri yàlla mën na ko yàlla nañ ko yàlla defal waxtu wi ñuy àddoo daal ngeen teewlu soxla su mu fekkee nit rek yàlla na ko sunu borom maa ngi daajeeku dafa am ñu réew ñu nekk sama wet mais bàyyil garaawul garaawul xam nga nit moom yàlla mën na laa teg natt boo xam ne doo ci mën dara te xam nga ni natt bi xaw ma kañ la lay teggee euh, xam nga man lu ma jaaxal bisu tey jënd naa sama yére jox ni ma ko war a jox pour ñu sol ko ñu teg fa yére yi xool sol yii yii de lañ sol xoolal lii ubbil. léegi léegi la la. bu kenn wax. waaw. deux minutes de noppi lii lañ sol léegi nag mbokku internet yi ak yéen ñi ñuy seetaan fii ci studio ñu ngi ci studio en direct ci Sénégal 7 en direct la ñu ne waaw fi mu toll nii. lan mooy lan mooy direct. bi. lan mooy direct. direct mooy maanaam waxtu wii tembe tembe tembe hmm. kàddu yu ñuy ñuy yëkkati hmm. nit ñi di ko teewlu amul décalage la mooy tembe tembe waaw mooy nii ñu nekk nii jóoli jóoli ah. nuyool nuyool nuyool waaw wuyu ma nag lay seetaan ah, àddina bi le monde te le monde t'écoute waaye la xalaat le Sénégal te temps loolee waaw waaw temps loolee maa waaw maa ngi maa ngi nuyu waa waa temps loloy déet temps loloy ñànku ñànku waa àdduna ñu ngi lay ñu ngi lay déglu boobu léegi bàyyil temps loloy ah, ma jàppoon waa temps bàyyi naa leen ak sama coobare bopp maa ngi nuyu maa ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk sutul ak sa sant waaw. waaw ah, maa ngi nuyu ñoom Moussa ñoom Faate. Mhm. ñoom Demba. ndeysaan ñoom Aysa. Mhm. Ibrahima. Mhm. Madike. Assane Ndoye. Mamoul bàyyi li waaw ba tànk bi ngay dóor. Assane Ndoye. waaw Mamoul. waaw Dame. yaa ngi nuyu ñëpp. dama leen mënoo amuñu temps bi. ah dana ñoo amul temps kon maa ngi nuyu. ñëpp ñëpp. wax naa ko ñëpp. waaw d'accord léegi noo korité. oh korité gi. Hmm. gay yi dañoo yaakaaroon gars dañu gars dee nañ. gars dañoo yaakaaroon qualité leen wi du neex. ah waaw léegi la la ñu waxoon. dañoo a man gars yi na ma na ma neex. waaw moo daax ci qualité lu tax. amul ay wël. ay wël kenn wërul. kenn wërul kenn wërul. da ngay toog. lekk ba sa mil mi fees nga tëdd. naan ataay toog. lekk si bu. ah <laughs> lekk si bu. lekk si bu waaw. xam lekk si bu. waaye waxoon ma woon ne seen jumaa suñu jumaa jee yaa fay jiite rek yaa fay jiite. waaw. ngay dañu maa tëj kon mu joo jiite. dama dem midi. waaw di laajte ndax gars yi ñëwaguñ ñu ma julli nañ ma def ñoom ban heure lañ julli gars yi dañ maa waxoon ne ma midi la midi kenn du ci julli waa ji waay waa jàkkee laay la midi la ñu waxoon ah gi midi kenn du ci julli waaw mais ñoom ñoom dina fekk ñi ñu julli ba ñibbi ma tama ni naa nelaw nga xam ne damay nelaw fa auxilier nga xam ne damay jël sama temps bu ma ne waaw li nga naroon a jullee waaw waaye waaye kii damaa jiitu na kii saal bu ñëw ba fii. ah kii saal. waaw ah d'accord. waaye mooy foofu dëkk gars yi teg ma diil te nañ ma diil boo xamante. indi waay yow waaye yëmbali waaye yëmbali bi ñu ma teg ne fu di diil bi musu musuma gis ko ma tegee diil bu mel nii. ma dem fa foofu gaa yi ma kenn ma laajte aw faa bi ma nekk ma nekk lay laay mu ne ma laay ma nekk gars yi ñëwaguñ mënu mu ñàkk gars yi def nañ ki def moom nga def nan. def damaa jékki-jékki rek xool kenn gisuma rek ma daw. nuyoo ah Ndiour. mu nuyoo. waaw ça va. bien. sa papa ñun kii. waaw bu ñun. nee ni waa les les oreilles écoute. Mm. kon xaaral xaaral ma yow xam nga tey tey bisu korite la. waaw damay ma wax ma wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa eh. maa ngi nuyu waa di nuyu waa Sénégal di nuyu waa diaspora bi ak téléspectateur Sénégal set yépp maa ngi leen di nuyu mm. ba pare xala xala xala papa da leen wax baal leen ma àq baal naa leen àq yàlla nañu yàlla boole baal ñu fekk ko ay doon yu bare bare bare bu fekkee déwén dafa nar a ñaaw ah na mel comme ren. yàlla mu mel ni ren. yàlla na mel ni ren. barki barki leçon lay bi déwén yàlla mel ni daaw. yàlla na mel ni ren. len bu fa benn at melati nen. waaw waaw waaw len doy na waaw. waaw moom nu mel ñaanam gi ñaanu lu mu doon. ñaanu dof dëgg. ñaanu dof nga ñaanu dof nga ñaan de. déwén na mel ñaaw man mosuma dégg loolu. yàlla ko gënal. kii dafa dof trop. waaw waaw ren kay moom mel yéen mag ñi ñooy ñaanee noonu. ren mu mel moom bu déwén la mi ne ci suñu kaw. nga naan bu mel ni ren hmm. yàlla bu mu mel ni ren. waaw papa hmm. ñi ñi génn àdduna fan lañ dem. ca ca suñu borom. ca ca yàlla ma tax génn ko àdduna. xam naa daa jotagul rek eh. xam naa xam nga lii nag bis bu a génnee àdduna gaa di dinañ ko dagg teg ko ah lu ma ca xam <laughs> solaale solaale ko rek waaw sol ko rek comme sama génn àdduna ngay wax fii en direct ah, yow yaa wax ni ni dañoo génn ko doo dem bu la gaa yi ne lay génn àdduna nga num jaay sa taxaw ci bunt bi ne leen sam faafa hmm. man góordan booy bi maay taxaw kenn ko génn kan moo kan moo kan moo kan moo kan moo jaay saaku ceeb bi ci yéen. kii moo wax na naa ko jaay xam nga man lañ ko saraxoon ñaan ko ne ma demal nga jaay ko seen la wax ma nuwee. xoolal waaw léegi waaw léegi non non bàyyi leen léegi nañ leen seetaan léegi yéen yéen yéen yi ngeen doon def waa Sénégal. waaw léegi bopp waxal ko seen bopp en direct ndax man ñëpp xam nañ ni sonn naa damm naa dee naa ma indi leen fii xool leen waaw. moom moo xam li mu war a waxtaan ak yéen damaa dajeeg moom rek mu nekk nit ku baax ma ko ma waaw comme ni ko ni mu ko waxee rek noonu la leen mm. man yàlla daf ma boole ak jirim yi mm. ba lépp lu ma liggéey rek fas yéene ko bokk ak ñoom mm. ah, rawatina nag weeru koor bii ñu nekk képp koo xamante ni sa baay génn na àdduna fu ngeen nekk dinaa la fa fekk jox la enveloppe bu cent mille francs moom nag mu fekk ma ma kay jox ay ñeneen ñoo xam ne comme yéen la mel moom ne ma am naa samay jarabaat yoo xam ne seen baay bi mu génnee àdduna ba tey wax dëgg yàlla seen lépp sama kaw la wékk te jamono neexul mu ne woon nag nañ dem bu ñëwee ma yëkkati benn envelopp cent mille francs moo ci nekk bu ko defee ngeen dimbali kooku lii affaire bu baax la hmm. ah ah nit ku baax nit ku baax rek la. te baax di weesu mbaax kon dañ naa jàll naka. dañ naan dañ jàll naka. waaye mbaax weesu mbaax kon nag dañ naan jàll naka. jàll naka waa léegi loolu lu baax la te alal jiliw boo ko lekkee boo dox après ni nga ni nga waaw waaw moo tax man du ma ko laal. loo ci xamul ah. moo tax du ma ko laal boo defee nii ci wéeru koor. ngay def ay teraanga nii. Mm. yàlla da koy ful. Mm. da koy ful bindal la ay tiyaaba yu bare bare bare. da koy ful da la koy fay du ko ful. waaw te mooy mooy ful bi. boo defee benn daf lay ful lu bare bare bare. waaw waaw waaw ndànk rek ndànk yow lu bare nga def. ndànk rek merci beaucoup waay. ndànk ndànk jërëjëf waay. comme amuñu jot nag dañoo bëgg a. waaw ñu mën a dem. jox ko moom mooy mag na signé. man sama yoon nekku ci man seen nijaay laa rek. ah papa signé rek. ah amoo bi. tu rêves ou quoi lève lève la mais kii mooy seen papa. waaw jox ko mu signé seen nijaay laa. góor gi papa yow. billahi rus naa la de. billahi seen non naa ay la ko signé rek. ay mais ñii boo leen defee dof ñoom ñu dof. waaw defal ndànk defal ndànk ma expliqué la ñii seen ndey seen baay daa dee. kër gii de ko doon sax man dama leen dama leen fee yore. suñu yaay fii de non dégg nga sëñ bi bu fekkee da nga wuti dóor man mënoo maa dóor dóori la sama alal ji bi ma koy liggéey pour. waaw léegi léegi waa ji bi mu dellu see da ngeen a sol sama yére. waa ah man jënd jëndal naa leen yére. waxtaan ban yére nga ñu jënd. dinaa waat ak yow. ah ba ba ba sax yow nga jël si nga jël xaalis teg ñu dil. waaw nga jël xaalis si. ah waaj ma tase ma ma mënu ma ah mënu ma tasante nañ ak waa ji. tasante nañ ak moom. waaj li paa moom teg dil waaj daan yow. yéen kanam nu mu demee. léegi nag yow man bu ma ruusee nu may def. kan man nga ne damaa ruus. waaw waaw ruus kay da ngaa ruus. waaw ruus kay yow parce que boo ruusee da ngay waaxu waate. waaw waaw waaw waaw solal ma yére bi ba bàyyi tuba bi yow mu solal la tuba ak yére sol dara ji. woote leen ci 77 883 41 83. 41. 83. 41. 83. 83 883 41 83. par WhatsApp par WhatsApp. WhatsApp la. da nga ko da nga ko mën a weddi. weddi wala. Ah, ah man de yow tàng xoole. 77 883 41 83. ah woo oh, démb. non damaa gis que may wax ak yow nga naan ma booru. non da ngaa tàng xool xoolal ni ngay def kanamam gi bu rusee nii lay def. non nga def yow da nga ko rusee boo rusee boo rusee xoolal gis nga bu rusee day day def laa la laa mu doq. <laughs> te xoolal xoolal tey dañu am surprise. Hmm. voilà. ana seen surprise bi. wax ko wax ko. police la police. wax ko. surprise kay moom ma ko waxee doo ko doon surprise. dañoo ñaani woon ndewenal. asalaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si na nga waaw allo salaam. noo tudd. maa ngi sant bu baax maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax di leen bége. maa ngi lay ñu ngi hmm? ziyaare tamit di la bége noo tudd. alo okan la seex waaw. man la maam jaar depuis Italie. sa fans bu lay bége bu baax a baax. Italie. Ah, ma ñu ngi ñu ngi ñu ñu ngi lay bëgg bu baax maam jaara waaye maam jaara waaw damaa am damaa am damaa am damaa am ñu ma àndal ñoo xam ne samay doom lañu waaye loo mën a gis wala loo mën a déggit nga nga nga muñ rek dégg nga d'accord bul muñ bul <laughs> muñ bul muñ déglul waaye ma wax ak kii ba pare yow tamit la ma tax nga naan ko nga mel ni mel ni àndoo ak ay noppil maam jaara kan nga bëgg a waxal ci ñaan yi waaw. ñaanko lay wax allo ñaanko. waaw <laughs> man la man la eh, waaw man la ñaanko. doo ñaanko wax wax yow. maam Diarra ñaanko. waaw mu numbe. waaw maam Diarra mu la. maa ngi wax ak kenn nag. man moom seen benn fans laa boo xam ne du ma rate seen benn sketch bu ngeen dugal rek maa ngi koy suivre bu baax a baax di leen dégg. très bien très bien. ne sii. télé bi dafa mel ni kooku daa daw de. man lu mel de. kan lu mel ko coupé. man lu mel ko coupé. man dama yor téléphone ba ko coupé. Ah, fa laa ko coupé soxlawu la. fa laa ko coupé. soxlawu la. soxlawu dégg dégg si suuf mu ni mën mbe waaw. non mais soxlawu la. ah yow tamit soxlawu la. waaw man soxlawu ma. waaw kala soxla. ah yow lépp demee demee il faut ngeen honnête da ngeen wane kala soxla da ngeen ne waxoon na ngeen ne golden boy bi la soxla. léegi daf bi la soxla. dañ koy def naan 77 883 41 83. def leen 41. 83. 41 83. waaw. 883 41 83. télévision waaw. nañ leen def ndànk rek da nga xam léegi kan la ñu soxlaa kan la ñu soxla. ok ok waaw. léegi léegi suñu surprise bi nag. suñu surprise bi mën euh, wax leen ma la. naa laa waatal ku fi wootee ñaa ngi ko lay soxla. salaamaaleykum. waaw loolu la ñuy seet. nañ xool ko ku fi woote nag ñaa wala kan la soxla salaamaaleykum. allo gu gu gu yaa ngi dégg. réseau bi réseau bi. salaamaaleykum. maaleykum salaam. kilifa gi na def. ñu ngi lay ziar bu wér. nan la tur bi ak fan ngay woote Serigne njaay Japon maa ngi wootee ba Japon. Japon. waaw Serigne non Serigne yow mi yaa sori nag fa ngay woote sori na trop. ah Massa waay na def déwénatil waay. ñu ngi lay jaar bu wér a wér baal ma ñu àq baal nañ la baal ñu yàlla ñu yàlla yàlla yàlla nañu yàlla boole baal amin mais ñi ngi ziar sëñ njànku njaay moom dama koy bëggee chaque jour du ma tëdd ziar moom man ngi ñi ngi ñi ngi leen ñi ngi leen di ziar bu wér a wér a wér a wér ñi di leen ñaanal yàlla mu defal leen jàmm ak taw féex ak barke ak barkeel leen amin yow it ñi ngi lay bëggee ñi ngi lay bëggee bu baax a baax amin amin waa dama sama ñaari doom yi kan nga ci bëgg a waxal ah. kan nga bëgg a waxal ci ñoom ñaar. ñoom ñaar ñëpp mais jox ma sëñ njànku moom alaaji njànku moom. alaaji ñànku jëlal. kañ la nekk alaaji waaw alaaji ñànku jëlal. waaw si seex bu baax anawaas anawaas Safo ak waa Kole. njànku maa ngi lay siyaare bu wér a wér. <laughs> naka waa Safo ak waa Kole. waa Japon. ah Safo yow nekkoo Kole Kole. kii nekkul Corée waaye Japon la nekk Japon laa nekk. mais maa ngi lay bëggee nag am na sama waaju la bëgg ju fi nekk nag. saan nekka ñànku nee mu ngi lay mu ngi lay bëggee de. maa ngi lay maa ngi lay bëggee nag sa théâtre dara du ma ci raw yëpp laay seetaan. nee na dara du kon sonn nga yaa ngi lee mu sonn waaye. waaw yaa ngi mën du mel nag rawatina suñ saaneex moomu. ndeysaan suñ suñ suñ su su papa suñ papa la suñ suñ suñ ndiyaay la suñ suñ lépp la. suñ doom la kenn du yéen ba ak sëñ Tuuba ndeysaan ndeysaan yéen ñu wax ngeen allo ki këlee dem bali bu lool allo yow yow pardon damay loolu 77 883 41 83 77 883 41 83 43 883 43 41 41 81 yow yaa ngi def loo ngay def. waaw waaw dayoo waxi def lekk. salaamaaleykum. asalaamaaleykum. salaamaaleykum. asalaamaaleykum. kooku dafa mel ni sooxe na de. kooku daal dafa mel ni jotaguñ ko de. yow ni ngay nuyoowee la. waaw yow atta déglu ko déglu ko yow. da nga naan salaamaaleykum. yaa Seyda. i yaa Seyda mooy kan jigéen da Seyda déglu ndax mi ngi Seyda ma def ni mooy ku jigéen yaa Seyda ku góor la Seyda mooy arab rek mooy arab ah salaamaaleykum Seyda allo waaw sa Seyda ah salaamaaleykum aleykum salaam maa ngi leen di yéen na yàlla nangu siyaar bi. ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp alaaji ñànku njaay faramaa reen. golden boy golden booy télé bi ñaaw. sa xëddan ma xëddan mu roog soow. mu roog waaw waaw. ah nuyu naa la de. ñaaw fay naa la. kii daal Moustapha Sy lañ koy wax sa sa soppe bu la bëgg sax. Moustapha Sy ñu ngi lay siyaar bu baax jàmbal. maa la delloo siyaar de. parce que yëpp laa seeraan sama téléphone ba mu jeex. télé bi eh, kon sonn nga ci koor gi. wallaahi koor gi ah laal na ñu tuuti rek waaye daal moom jeex na ci jàmm. télé bi kon wétali nañ leen de. day luu moom kay ni ngi beneen affaire. waaw waaw waaw kenn yéen waxatoo leen dara. yëpp laa yëpp laa abone woon ñaa ko ñaay yëpp laa abonné. télé bi ndeysaan ndeysaan yéen a baax waaye. di di bëggee suñu nijaay jooju noonu Sanex moomu. ndeysaan suñu xarit la papa. di lu ziar bu baax. kilifa gi maa ngi lay ziar. ñu lay delloo ziar bu baax. di la ñaanal yàlla mu defal la jàmm ak sutura amin amin amin defal la ndam ak yokkute amin amin waay barke ak barkelle amin amin ñu bokk ñu ñëpp fekkee ko ngay wootee diwaanu fan maa ngi wootee caaroy nii ah caaroy caaroy waaw sëri woo ma man yëmbal laa dëkk yëmbal kii sori woo ñànku ah yëmbal sori woo ñànku kay ah maa ngi koy nuyu moom de maa ngi koy nuyu fay fay naa la fay naa la lu bëree bëree bëree bëri ça ça va naka yitte yi. ça va bien naka naka korite bi korite ngeen ci jàmm. waaw korite ngeen ci jàmm bëgg naa la lool. waaye maa leen gën a bégee maa leen gën a bëgg ah, eh, eh, mag bi du wéeru dafa dof. comprendre ko rek. yow papa war nga wax kii. allo waxi dof rek ngay wax yow. kii kii seetaane la rek. <laughs> waaye dem na waaye ngay alu alu nii rek yow xanaa sa yaram neexul. bu dem du yi la ñuy jënd kat ay. ñoom waa Safo Ndiaye. eh, eh réseau bi la nga naan crédit cent franc na ñuy wax ak ñun. nga ne yow yow loo wax yow. Hmm. waaw waaw waaw waaw bisimilah am na lu ma wax ci ne na ngeen réglé. ah borom kër gi nee na ngeen réglé. kër gi. doo ngeen xam waa euh, ah, bu dee góor yàlla na ñëw. waaw léegi ñu ñëwaat ak yéen ci beneen extrait boo xam ni après yéen da ngeen di dugg woote yow waxal yow am na ku nekk ci ligne bi. allo. allo oui ma Ndoumbe. salaamaaleykum. maaleykum <laughs> nekk. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax naka korité bi bàlle ñu àq. waaw baal na la baal ñu. yàlla nañu yàlla boole baal ñu fekkee ko ay doon yu bëree bëree bëree amin amin amin bàyyi ni si am baax rek. waaw ñu ngi sant ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. waaw ñu jërëjëf jërëjëf ñoo leen gën a kontaan trop. Mm, waaw kontaan nañu wax yàlla dégg ngeen lool te bu ñu sañoon nag affaire série day continuer day continuer. incha allah incha allah am na ay surprise yu ñu leen dencal. waaw waaw noonu la incha allah ñu ngi. waaw waaw mbokk mi fooy wootee. ana ana ana ana ana ana fara faramaaren bi. moo ngi nii toog Golden Boy bi. Golden Boy bi. <laughs> faramaaren. waaw waaw. <laughs> ñu ngi lay bëgg de. jaajëf jaajëf Faye. waaw waaw waaw ñu ngi sant ñu ngi sant baax kay. Hmm, ñu ngi kontaan ñu ngi kontaan bu a baax di jaajëf jaajëf waay naka yow fay wootee yow. man kay dañuy bañ wax fu ñu wootee. allo fu ñu wootee mu dem dem na. allo wax wax allo ndax. allo allo. waaw gars bu ñu dañuy làqatu. bu ñuy dugg nañ tàggoo. ah est-ce que. parce que yow dafa am ay surprise yu nekk fii wax. est-ce que nekkul ñoom itam moo saturé ah xoolal bàyyi ma wax waa régie ñu dugal benn sketch après après ñu ñëwaat ci ñow. très bien télé bien ñëwal ñëwal. moom ne ma am naa samay jarbaat yoo xam ne seen baay bi mu génnee àdduna ba tey wax dëgg yàlla seen lépp dañuy waxtaan eh, waaw tey lu neex laa leen nar a toogal hmm. waaw waaw na tooy bu mu ceeb bu weex laa dugg waaw ba am suul ak ma def ci tuuti kaani laay jël li ma am ay waay tey jàpp ngeen de ak man mi am na loo fàttal ka ko de kanja kanja ma jënd def naa ko kanja. kanja léegi laa wax dëgg dëmbal bi. waaw bu baax la. ak tam li tax. waaw kanja léegi laa bëgg. tey dinaa ko ceebal tey. waaw xoolal xoolal xoolal nee na defaat na ci bopp yabooy. ma jënd yabooy. ah damay damay taj sa. lan eh. boo ma saagaabal. amul yabooy amul yabooy bopp yabooy. amul yabooy amul yabooy par force am na yabooy. am na yabooy am na bopp yabooy. amu ko amu ko amu ko. am na yabooy am na bopp yabooy. bopp. da ngaa jënd bopp yabooy sama. waaw sama sama sama. jënduma bopp yabooy. coof laa jënd ak sëdd sa 1000 francs daf maa doy sëkk da damaa demaale teg fa meeku ma yàlla ma jënd jënd na bopp yaboy jënd ko bàyyi tool maa nga yegg ci biir waaw waaw waaw waaw fànn ñu koy maccaatee nga naan fànn ñu koy maccaatee amul yee fitna boo toog nañ bopp yaboy dañ koy maccaatee eh eh eh eh, eh. ñëwal bopp yaboy eh. man la nee la ko nee naa ko moom la ko wax. waaye man naa ne bopp yabooy. bopp yabooy. eh eh déglu déglu déglu fii du eh, nga de. fii damay tojate affaire yi de toj fay la. waaye léegi léegi tojal tojal tojal. ah boo leen tojee da ngeen li nga taxoon. amul lépp li taxoon bañ ma indi dama ne borom kër gi mënuma leen indi ndax rek la wu leen bu ko wax man waxuma la ko bu ko wax loolu. bopp yabooy ba mu neex ma kii day dof dof lu rek dara jotu ko bopp ya booy. na jël responsabilité bi. jaw na jël responsabilité bi man. Papa Ngagne laa xaw lu ma koy def. na na non Papa Ngagne moom non non non non Papa Ngagne moom kay moom moom kii. xaw ma lu ma koy def moom laa lus. Hmm. waaw mais bu mu. yow am nga kóorus yow am nga kóorus. bopp ya booy. yow yow mi ko wax bopp ya booy. waaye ma ko wax yow yaa ma gën a jege. yow ñaw ñaw. xoolal lii lagal naa ma ne la ko dell nga ne dal daal. ah man it ma jël micro yi ni la ko jóg. ci bët. waaw waaw ci bët. maa ngi koy njëkk ah man xaw ma man daal de de boo dóoree ma ma jam la rek wala nga dóor ma door su dee dóoru ma. ah bu boo boo dóorul tamit man man njëkk laa dóor rek. déeful na pour nga bañ ma dóor. waaw dóoratu ma dóoratu ma de. waaw alay nga koy lakk te ko bu ma lakk. ñëw waaw. waaw man balaa nga maa rey ma rey la balaa nga maa gaañ ma gaañ la man du ma la jur ba pare nga gaañ ma ma perte. waaw. ay perte yoo xam ne xanaa war ngaa soof. waaw yaa ma gën a soof fuuf xam nga looy bañ ci bopp ya booy bañ ci bañ bopp yabooy xaw ma loo ciy bañ. ay galaatay dee rek yow bopp yabooy rek lu nekk mën a bëgg bañ. yéen yéen a ngi tàngal sama xol bi de. waa léegi daa léegi. di yabal xol adduna bi sax koy laaj. waaw léegi lan lu tax ngay bañ bopp yabooy. lu tax réew rek Sénégal kenn waru fee nekk di wutal sa bopp bañ. jëw ñi ñi seetaan ñi ngi naan lu tax yow ngay bañ bopp yabooy. wax la. <laughs> deewal deewal yow mënoo sax. waaw waaw jooyal deret jooyal deret ñu ni bopp yow maa ngi lay nuyu di nuyu euh, Fodé Cross. waaw di nuyu Topbeuse di nuyu Mbaye Xaar euh, Mansour Ba maa lay nuyu bu baax a baax a baax a baax a ah, man nag ñi ñuy seetaan yëpp mënuma leen a nuyu nag wax dëgg yàlla ah Thiat Gueye nuyu naa la nekkal foofu de jooy Basine Ka ngi lay nuyu mm, Ibzo Gaye jaajëf waaye ah ñi ñuy seetaan waaye ñu ngi leen di nuyu waaye. Ah, da bàyyi jooy ñànku ñànku papa may ma ko rek may ma ko rek yabaate bi bëgg a dee aywa yabooy nga bëgg fi nekk di bopp yabooy ko sompaat moo tane allo allo allo bu la wax de waaw bul wax bopp yabay daal. allo. allo allo waaw waaw allo ma ne nee na bu ko wax bopp yaboy. allo. allo Manumbe. waaw ah Manumbe. bàyyi ko Manumbe. allo. allo waaw kooku Manumbe. waaw man la Manumbe ça va. <laughs> ça va bien. kii lan lay ree. yow yow yow noo tudd ak fooy wootee. non da nga reelu quoi yow moom da nga reelu. yaa yaa ma gën réew. dafa leelu dafa leelu koo neex. dafa da nga réew. da nga leelu leelu. waxal waxaatal loo ko wax. dégg nga allo. kii da koy reetaan bi. kii dafa réew. allo Manoumbe. waaw. allo. allo. allo waaw. yow ñu ngi lay dégg. man Italie laay wootee Italie laay wootee. fan Italie. mais gën wax. xanaa ci ordinateur am la ñuy seetaan wala téléphone yow di déglu bëgg di déglu fay di déglu fii di déglu fay. allo allo allo. mais yow doo fay télé bi. ah am na ñu gars yi nekk Italie ñi ñi ëpp wéluñu ah. yaa ko wax. yooyu say wax la. say wax la sama yoon wéruñu loolu moo la dañ dof lu tax lu tax ñuy def la. xam nga tax. ah confinement bi moo commencé yow bi la. waaw. tëj bi leen tëj noonu. te ñoom tàmmuñu ko. nga gol kenn du ko tëj. boo commencé di seen xel alo asalaamaaleykum. <laughs> ya Seyda. asalaamaaleykum. ya Seyda. kii ak ci woo ya Seyda. mais xanaa kenn nekkul ci ligne bi. allo yéen waa ligne bi. salaamaaleykum ya Seyda. waaw na def. ñun dégguñu leen de. kenn waxul. waaw nee na wii allo nee na ma it. est-ce que nekk silencieux. daa daw daa daw am na ko woote waaye daa mel silencieux la. waaw silencieux bu dee silencieux la moom moom moom du du wax. yow daf nga la lay wootee fii. waaw am na. am na am na unité yoo xam ne ay silencieux lañ. silencieux. yow kii wal kii wal. ñoo woote fii kii wal. na def waay ça va. maa ngi lay siyaar bu baax. yéen a nag ñu ngi def waay. ana Manoumbe. maa ngi nii ça va. Manoumbe na def. maa ngi fi ça va yaar naa leen ana sama doom baay El Hadj Cheikh Guèye. mu ngi nii toog. kilifa gi na nga def waaye Guèye Guèye Guèye. waa Guèye Ndioro man la Assane Guèye chauffeur bi Tata depuis Saint-Louis. ah Assane na nga def ana waa Saint-Louis. waa Saint-Louis ñëpp a ngi fi di leen. baax baax seddul. yàlla xam nañu de seen chaîne yi laa abonné mais chaque jour sa épisode benn du ma raw. incha allah dëgg moom wax dëgg yàlla ba muy doog a moom. mani dama ne woon ah ñii de dañoo bari dañuy dof doflu fii ma ko seetaanee seetaan naa ko man kii vraiment billaahi xam nga commencement yu bari dañ fiy bari chaque jour série chaque jour série mais benn laa laa sama temps ma ne xaama déglu ko ba xam nan lay wax mais ci biir li muy dof dof la da gis ni kii dalay yee bu baax quoi da nga ciy jàngee ay leçons yu bari yàlla mi ngi xam na loolu billaahi ah, yàlla xam na man moom bëgg naa leen trop trop trop damay damay dem ci terminus yi sax ñu dugal notification seen benn série sama tour jot de ma war a dem mais du ma dem mën naa bàyyi oto bi nekk sama ginnaaw mu jël sama tour ma seetaan ko ba pare doo ko dem mënu koo muñ quoi. damay yàkkamti yàlla mi tiim xam na ko mais yal na leen yàlla jàppale. yal na leen yàlla alaay seexu yoo tamit yàgg nga ñuy bégal ba tey jii rek suñu seen réseau yi mi ngi tegaat seen série mooy Sané dañu ànd ak alaaji góor la te jaxase kër Cheikh Ndiaye gi yëpp dem ci wax fii dem ci goro bi wax fii dem ci jànk bi wax fii boobu laa doon seetaanaat tey jii damay réew yu bëggee dee yàlla xam ne mooy fi nga nekk seetaan vraiment yéen bu baax a baax yàlla taxaw leen eh, ndar jën bëri na fa ah ndar ndar waaw jën bëri fa jën jën waaw instant yi jën bëri na moom mais xam nga rek confinement bi des fois yi mool yi dañuy toog ñaari fan dem géej surtout weekend bi yaboy fa yaboy bi bu fa valide temps yi moom fii fa bari jay très jay ah. yi moom bari na fi trop man bañu ma jay waxal li ngay wax yëpp mais wuy ma yaboy de yaboy yaboy la ñuy ku bëgg ñànk doo lekk yaboy très bien waaw koy ñëw <laughs> eh, sama xarit wuy ma wuy ma sama xarit dama bëgg ñànk moo tax du lekk ko bopp yaboy bu ko wax de bu ko wax de. bu ko wax de dama may bopp yebooy rek bu ko wax de bu ko wax. donc kon ña ko daf may mere damay damay mu retiré waa Saint-Louis ci chaîne bi quoi. gannaaw lan la lay retiré. xanaa xanaa yow nekkul góor yàlla day wax yebooy rek bopp yebooy. mais boo faale nekk boo nekkul góor yàlla nekk góor yi nanti bi bul wax. allo Niankou. waaw. ma du ma ma envoyé leen bopp yebooy wala. voilà kay. Ah ah, ah ah ah ah ah tooñ nga nag tooñ nga tooñ nga. <laughs> tooñ nga nag yow yow tooñ nga nag kii mën na tooñ de <laughs> ma ngay jooy yaa ngi jooy ah ah ah Assane Gueye mën nga tooñ de Assane dafa leew waaw waaw léegi léegi ka leen di séntu nag ngeen def tournée ñëw ndar affaire yooyu waaw non dinañu ànd ak vingt bi day arrêté tabaski bi ci Sénégal set rek nag la exclusivité ah. waaw baax na ñu ngi leen di déglu incha allah exclusivité waaw jërëjëf nga ñu ñëwaa ndar ca kaw ca kanam rek yàlla baax na ak bopp yaa booy bul ko fàttewaale <laughs> jërëjëf merci Assane sa way bi nga gën a maîtriser bi nga xam ne tournée bi moom la ñuy way parce que waaw waaw dañuy yor ay guitare ak ay batterie yow bi yow yaay parce que yaay golden boy bi man ma nekk fecckat bi dafa may moom ah yow fecckat nga yëpp man gère ah, am nga ay musiciens am naa yooyu yëpp waaw acca acca am may bokk tijjee ak moom may tëjee léegi ban ban nga tijjee nooy dikkee bay moom may tijjee waaw ah. bisimilah salaamaaleykum. yaa ngi ci jàmm. ñu man du ma yow yaa yaa sa ku gën a sadik. waaw. Eh, man gën a sadik de. Ah? gën a sadik ci yaa yaa ñaanku yaa ñaanku kan moo gën a sadik. ñaanku dafa dof de ñaanku sadikul dafa dof. ñaanku yow ñaanku di giree ngaan lan. ñaanku dof la dof. xam nga dama leen bëgg a tëggal combat sax yéen ñaar ba xam. ah, ah moom la kan bay tëggal. waaw léegi yow yow la ah, nga de. Assane ñi ngi dëkk waaw. ah Touba Mbacké ah Touba Mbacké. ah yow léegi léegi léegi léegi fan nga leen tëggale combat bi Touba de déedéet. du Touba de Touba bëri ah? ko foofu yéen ñaar. tëggee combat bi. fu ko bëggee yéen ah waaw waaw foo ko mën a tëggee rek waaye du doon Touba de. foofu lay doon foofu lay doon Cheikhou Gueye. seen bi coupéel. ah. coupéel ah, garaawul baax na yow da ñoo bëgg yow sunu dee nga bëgg. léegi jox ma ñànko yow ñànko. ñànko man kay ñànko moom moo ko ba koy joxe. neel allo rek golden ma bàyyi nii. allo ñànko. oui. ñànko yow nu mu demee. nu mu noos. Ah? na yaa noos. yaa ngi noos laa wax. tuuti tuuti tuuti la ñuy noos. waaw jox ko sama néew na léegi sama néew na laay laaj. xaar affaire naa la eh, affaire nga la jël ci naa la envoyé cent franc. bëgguma de bëgguma. ah loolu de loolu laa bëgg deux ah loolu loolu ñaata laa ko war a jox cent franc foo ko ko wecce ko day bari. ah est du ay du est du ay rek dix personnes. ah waaw soxla mooy cent franc de cent franc baaxul. waaw cent franc nga bàyyi sama la jël. waaw kon kon kon kon kon baax na xam naa yaa ngi mëntu bi moom nee mëntu bi nee na moo la gën a sadik yow nee nga yaa ko a sadik waaye yéen ñaar naa sorewu leen. Ah, sore nañ ko sore eh, sore nañ de ñu sore. ok jàmm xéwal. Ah, jaajëf jërëjëf merci beaucoup. waaw léegi après nga nan ngay nan ngay ñëwee. dama naan xale bi ngay lëmm ci mi mu jooy asaama yaay xale bi mi yaay booy. mu ngi yooyu naan asama faay. fay fay fay. lay lay lee. yow seen seen i doom seen seen seen. defal da yërëmee yéen seen i doom seen seen seen. kilim ngal kayit. da ngay waay wala yaay tëgg. Ah, ah, da ngay jël benn jox bàyyi ñeneen ñi. maa ngi tëgg waaye rek. waaw loolu giin suñu te contre temps rek lay tëgg. wii bañ waay. gën ndax say lii laay. gën ndax. yërëme leen seeni doom. dem dem dem wala damay fecc rek. damay fecc rek fecc yemal ci fecc bi. ku nekk ak li ngay jël la. ñu ngi ci répétition bi. donc papa nag yow un deux trois action. xale bi ngay jël ci benn bi waay. mu ngi leen di asar ma yaay. ay way bay bee. gën ndax lee lay laa. gën ndax ci li ma ci yërëme leen seeni doom. dem dem dem dem. jeex bu tëggatoo di. ah maa ngi tëgg yow yaa ngi nag yow. maa ngi tëgg yow li li mooy tëgg lii lii lii tëgg la. kiling kiling nga bàyyi noonu. ah jaww jaww waaw léegi jëla tëgg. kon kon temps lay bay ah ban tëgg nga mën a tëgg. kii lim nga kaat mbir kii lim nga kaat mbir kii lim nga la sardan ba tere sa sardan mbir la sa mbir ki sa xaxala sa mbir mi lema sa mbir mi leen ba sigir taan dat sa sa dat sa dat ku jël loolu la. ay ay waay waay waay waay waay waay waay. waaw ok ku jooy nag. yow suñu papa yow ah. papa. ah émission baa ngay bëgg a keefal ma. yow lu liggéey yow yaa ko moom. émission baa ngay bëgg a keefal ma. moom neex na de trop. léegi nag ma bàyyi leen ngeen tàggatoo nu di jaay ndox daje ba saa yu leen neexee rek. de waaw sama bi deuxième son bi. waaw deuxième son bi ak surprise bi. sama deuxième son bi. na nañu am na kuy kuy bëgg a dugg balaa ñoo dem. atiwa ku koy wax allo waxandoo leen. un deux trois. allo. allo. waaw. allo waaw. alo alo alo waaw ñu ngi lay dégg de. allo. allo waaw. wax nga allo toute la fois te ñu ngi lay dégg. allo. allo ka quatre fois ñu ngi lay dégg. ñu lay dégg de ñu ngi lay dégg waxal. te mu sëñ ka koy waxaat de. allo. allo. allo waaw. ñu ngi lay dégg. allo salaamaaleykum. fayal sa télé bi fayal sa télé bi. salaamaaleykum yaa Seyda. allo. allo allo. xanaa doo fay télé bi. ñampo ñampo waaw waaw maa ngi nii. waaw allo noo def. yaboy bopp yaboy laa laaj yaboy. Oh, dafa <laughs> oh, bi eh. eh. bopp yaboy. dafa yaboy bu fekk fi ma ngi Malick yaboy. ñaw ma ni ñaw. wuy ma. bopp yaboy. ñaw yow da ngaa léew da ngaa def yow nga xam bopp yaboy. yow lay waxal yow ko ngay waxal ay bopp yaboy. yow kan ngay da ngaa léew kan ngay waxal. yow eh yow lay waxal ak ñooñu nga dendal yëpp da ngeen a léew fa da a dof. ba ba siir naa ma su ñëwal ñëwal maa lay gar. lesuma la lesuma waa Mali lekk duma ma lekk sax si dee Mali xanaa looloo gën a dee. ñëwal ñëwal maa lay wa ah, wala góor yàlla nga génnal. man yàlla man maay mu rëb soow sëkk dënn mu rëb soow man la. sëkk dënn mu rëb soow bul jël sama sëkk dënn mu rëb soow da nga sa da nga jël sëkk dënn mu rëb meew. man la nga fay man maay faramaaren bi. waaw golden boy baa ngi nii. bu golden boy man nii la man maay golden boy bi. yow li tax da ngaa da ngaa ñëw luume ma xanaa dañ laa yabal. kenn jàngalu ma man maay ñëw sama bopp ñu sama bopp man la. bu dee góol yàlla nga bu dee koy góol yàlla nga génn ngay génn ñu tasante ci bunt bi. kaay maa la xaar ñëwal. génn ku feeñ nga génn. ñëwal Malika laa dëkk Malika ñëwal. Malika non furoo Malika. Malika maa xam nga sali woo ma. waaw sali ma la kay moo tax ma loolu. yow xam nga sa day saf. ñëwal ñëwal. waaw baax na ñu ngi ñëw jërëjëf sëñ bi eh, eh, dinañ la dabaat ci kanam dañ lay ci feneen bàq séeri naa wax ne yow boo mooy dafee muy taxawee kon moom kon moom mooy nafu naa ma ay muy taxawee foo taxawee naan lay bopp sa bopp bi dañ ñëw xaar ya <laughs> si waxaatee damay wax de ñëw dem na daw na alhamdulilah wa alam ñëw ñëw ah réew rek tey gis nga. allo ku a réew dof doful. dem na dem na dem na dem na du ñëwaat dem na dem na dem kon nag mbokk yi xarit yi ma ngoog ma ngoog kay damaa génne woon sama doom yi kër ya pour indi leen ñu doxantu ci kojate gi ndax ñoom bu ñu génnee rek dañuy rajaxe boo leen ak boo leen gungewul ñu génn ñoom ñaar nii. dañuy rajaxe dañuy rajaxe dëkk bi. dañuy rajaxe léegi nag man fu ñu génn man ak ñoomay ànd. dañuy rajaxe ma indiloon leen fii ngir ñu tàgg nuyoo teggeel. ñaan de woon ah da ngeen a ñaan déwénal ni waaw waaye ñaan déwénal bëgg a ñaan déwénal naan leen damay damay tëj kër gi kër jàmbur la dama koy tëj gaaw leen ñaan ñi ngeen di ñaan déwénal gaaw leen mën a ka lay ñaan déwénal ah yow waxoon sànq am na ku ñu ñaan déwénal yow mii boo bëggee wax benn affaire sekk déwénal xaw waaw waaw waaw teel ma temps waaw Titi kati afrika sambal bila misil ba chesi la vale sa salan bili ba salan bili ba sa ul ul ul ul ul ul ul ul ul ul waaw boobu ngay feccee. ah waaw boobu da laa neex na. sama biir xol bi sama xol baa ngi fili ko. ah waaw boobu nan la koy waye nga ni. sambal bi ni bisil ma cesi la bale. ah da salsal bi ni ma sala bi ni ma. kun kun tuwaar doon moo la may daw. damay bañ damay bañ. damay fecc la doon laaw laaw yi ngay laaw laay laay. fecc la fecce fecce. waaw man da waay day yàq. mais ni koy fecce ni xam xam nga. sambal bi ni bisil ma cesi la bala. sambal bi ni ma waaw léegi ñu jël ñu jël dernier auditeur bi wala auditrice ah kakar allo kooku kan la kooku day luube na ta wax allo allo ah waaw kon ma ngoog allo waaw man lu mbeeg ñànku kan nga ci bëgg a waxal allo allo waa ñu lay dégg fayal sa télé fayal sa télé ñànku waaw fayal sa télé bi tubaab tubaab làkk tubaab tubaab boo xam tubaab Bonsoir. Allô? Bonsoir, oui. Je, je suis là, c'est moi Nyanko. C'est qui? Allô? Oui, c'est moi Nyanko, c'est qui? waaw Nyanko. waaw bien. waaw Nyanko la Nyanko laa bëgg a waxal. je golden boy qui parle. allo. eh man la man la golden boy bi waaw allo. jàng waaw ñu bi fayal télé bi. jàng leen ngeen bañ jàng waaw waaw. allo. ah waaw allo ñu ngi lay dégg fay leen télé bi bu ngeen bëggee wax ak ñun da ngeen di wàññi tele bi ba mu sës wala ngeen. fay eh, eh, taaluma télé de maa ngi ci mbedd mi taxaw. ah waaw eh. per bu xara. très bien sama waajaa ngoog. sama waaji foo ba ba est xam ngeen ne. Eh, mën naa ni daal fi mu ne nii sama xol dafa seddoon waaye tey la rawati ci àdduna. ndeysaan ku faax ku barke yonent yàlla Muhammad ndeysaan sama xol daa sedd guy guy guy guy guy guy bi ma gisee ànd boobu. yàlla na leen yàlla lafal cat ci barke yonent yàlla Muhammad. amiin ak yow tam yàlla na la yàlla lafal cat amiin mais déglu ma wax la li ma eh, bëgg. Seexu waaw Seexu waaw. yow xam naa sa yéene ci artist yi xam naa sa yéene ci nit ñi. waaw damaa bëgg ñëpp booloo rek na artistes yëpp. booloo doon benn ndax ndax xam nga man xam nga man danga maa won ma gis. waaw. ñu bokk di liggéey nga yëkkati sa alal la nga cay am nga ko yëkkati di ma jox. ndeysaan ndeysaan mais mais mais ma gis nga ànd ak samay rak. muy mën mëndumbe di ñànku. ndeysaan mais xam nga lan laa bëgg. ma ma bëgg nga ja jàppale leen jàppale leen si yow. mu ngi jàppale de. mani. waaw. man xam nga lan mooy sama rêve. artistes senegaal Sénégal yëpp tey tayaatu doon benn bokk ndey bokk baay. loolu yàggee nga ko. barki Mouhamad man loolu rek laa bëgg. loolu yàggee nga ko ndax yow xoola boo xoolee yow amul looy def ci àdduna rek te dooma woone ma per bu xarkaay bokku ci léegi nag dama bëgg nga ñëw ci sama kër gi régleel ma ko en tant que policier <laughs> ndax yow sama xarit nga yaa nga dëkk ba toog te ancien policier nga mën ngaa régler sama ñaar ñii dama bëgg nga dugg ci ci kër gi régler kër gi ah bu ma dugg see mbaa duñ daw ah non da nga koy régler kër moom dama lay woo nga régler ko. man liif liif gi laay indi de liif gi laay indi. liif très bien indi liif bi. damaa yi leer. wala ma indi décharge électrique yi décharge yi ñuy maase. mooy maase. li électrique mooy waaw. yàlla mu am yooyu laay indi. mais per euh, kontaan nañu. non maa gën a kontaan Cheikhou. yàlla na yàlla yokk jàmm yokk sa sutura yokk sa kontaan trop trop moo tax ma ni nu ma mënti def danaa fexe ba woote jot leen. jërëjëf. tante naa bay bëgg a dee mais dama duma du ma bàyyi mukk te jotuma leen. kontaan naa. Cheikhou yàlla na la yàlla lafal cat yàlla na yàlla lafal jàmm ci barke yàlla Muhammad. mën naa defaloo mën naa defaloo ma dara mën na nga defal dara. yow. waaw waaw. père kontaan nañ bu baax a baax. Eh, mais ma ma numbe. waaw namu naa la. mu xoolal yow daal yaa ngi moomu. Ah. fi daal fii ñaan saafara nga bañ xoolal dénk naa xoolal dénk naa leen Seexu. ndeysaan jeex na yow suñu waay nga. ndax moom damaa xam yéeneem ci artistes yi. xam yéeneem ci nit ñi. ndeysaan te barke yonent yàlla Muhammad bu ngeen àndeek moom rek du ngeen ko rëccu ci àdduna jërëjëf jërëjëf ndax baax na xol bi yaatu na te li mu yéene boppam la yéene moroomu artiste yi ndax man dama koo dund ak moom wan nañu ko de billaay walaay mi ngi ñu koy woon bu baax a a dama koo dund ak moom mi ngi ñuy jàppale mi ci kot mi eh, eh, yow yow yow def déggoo li ma la wax kay moom kay xol xam naa ni ligne bi ñu bëgg dugg bari nanu billaay billaay mais père waaw dama ne woon naa dugg rek yow da nga baax ba pare suñu papa ji nga ñu dénk mi ngi ñuy mhm. jàppale ci côté yëpp. mi ñuy conseil mi ñuy teg ci axe mi ñuy jàppale wax dëgg yàlla. yee noonu yi la ko nekkee ak man mii. ay teraanga. ne xam yi la ko nekkee ak man. fer bu xal te yow it nga. waaw fer bu xal. waaw man ak man ak ma numbe bu ñu tëddee guddi. ya man bu ñu guddi. ma bu safee foofu sam papa day jóg dem satal ka. <laughs> day jóg dem fan. dem satal ka. <laughs> te loolu bu ko neexoon bañ a yàq ay nelawam loo ko ku baax la waxal. dama koy bañ a génn bu leen ma rey yàlla <laughs> na leen yàlla defal jàmm maa ngi leen bàyyi ngeen continuer jërë ngeen kontaan naa lool léegi nag Pekh euh, Okhar woote na ba pare tëj nañu ligne bi c'est fini émission bi yam na fa. a baax bu xar. kon nag gars yi. xam nga ni Sénégal. waaw ah. saa yi dañuy xaal. Hmm. dañuy xaal émission bi te mu continuer. waaw waaw waaye waaye du continuer. du continuer du continuer. sàmm ngay sàmm ngay dee na. lonku na. yow yaa ngi dem léegi léegi kër madame Ndiaye ñu jox la xaalis bu bari da nga fàtte. jox nañu surprise jox nañu 7 ah, da ngeen ba woon. mais nii. xanaa bu ma demee bu ma demee. ñaata ñaata nga am 7 millions. teg teg saabu teg saabu. xoolal lu 7 millions yaa ngi nii. laa ilaaha illallah. ah kon nag kër madame Ndiaye ngeen ne mu jox leen xaalis bi. waaw waaw waaw 7 millions 7 millions. waaye léegi yow lu tax émission bi du continuer. ah lu tax émission bi du continuer. 7 millions 7 millions 7 millions. lu tax émission bi du continuer. xam nga lu tax. waaw dama faa jaar léegi. waaw ginaar gi ñu jox. waaw ki ko doon toog da kaa jàpp loof ka. waaw xaaral gi sa sax. waaw. may wax ma ne ma naan. mu ne ma mu ah xaw ma xanaa. waaw léegi gone du téye xaalis. ah man seen baay téyel naa leen. papa loolu day yemb de. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa. Eh, eh déglul ma tàggu ñi. non non doo tàggoo de. tàggoo goo de. da nga yow tàggoo de. Eh, tëjal tëjal bu tëj. Eh, tëjal bu ko tëj bu ko tëj. réalisateur